bila suyufin wa armahin wa arjafin wa salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu wa rahmatullahi ci ndigalu sëriñ bi mu ay e, kàddu yu bàyyi ko ci moom ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd wér ndax lii sëriñ Modou seere léegi loolu rek moo tax ndax ko ne xam na ne xat na ndax dugg nañ ci weeru safar te mbooloo mi siyaare ak daayira yi bari na lool waaye kero ba sëriñ Modou Lo ñëwee ci moom jottali ko ne ko liggéey bi àgg na te lépp Serigne bi àndoon ko moom Serigne bi da ko wax ne ko fii ma toog dara bàyyi moo fi lu may liggéeyee Serigne Touba kon nag buñ ma doon teg teg ci puus puus ma ci doxi sax bu tee may liggéey sëñ bi na ko jëmm ji man rek kon loolu mooy ni mu ko defee tey kon Serigne Modou yàgg waa daayira sa sa fii noonu amaan bi nga xam ne yaa ko jiite sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci sa yitte ak sa taxawaay ndax bokk bi nga bokk ci sëriñ bi xam nga ne tawféexee sëriñ bi la ak dogalu suñu borom waaye nag doyloo woo ko da nga xam ne sëriñ Tuubaa ci liggéeyal ko rek ci lañuy jariñ moo tax nag nga fëttiku laxasaayu bàyyi sa yitte di moo fenn toog ci dëkku sëriñ Tuubaa bi di ko liggéeyal ci lii nga xam ne mooy war may dëkk bi ndax ku ne xam ne ne sëriñ Touba mboolem li mu bëggoon rek ñaan na ko ci dëkk bi di Touba te lépp suñu borom may na ko waaye nag lam mu waxoon ci jumaa ji rek mooy lii am ci mbiram yëpp daa waxoon ne bu ngeen ko liggéey de malaayika yi dinañ wàcc ñëw liggéey ko kon nag dëkk bi itam li fi Serigne Touba ñaanoon ci ñaan suñu borom mu sol ko ci dëkk bi ba wax ne wa maskani salli minal fujjaari wa amnun alal ahli bima in jaari loolu nag sëriñ bi nee na yow yaa am tawféexi sëriñ Tuubaa liggéey loolu ci liggéey bi mu la ci liggéey loolu it nee na lii lépp ci sa loxo la sotte kon war ngaa sant yàlla bu baax te santaa sëriñ Tuubaa te gën a fetli sa laxasaay te wéyee liggéey bi te xam ne day yëngi day ngi ceeg tawféex day jee ngërëmum day yëngi ceeg ngërëmu sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom nga liggéeyal mi ngi ci sa kanam ndax xam na ne bëggoo ci ku la tagg rëguloo ku la xas seere Sëriñ Tuubaa képp ngay def ak seere ko ko moom mu ngi fi nekk moom mi fi nekk nag làkk nga ci ngërëmam nee foo geesoo da nga ko gis mi ngi ci sa kanam nekk sa ginnaaw de ko ànd ak yow bu faw ci lépp loo xam ne lu mu ci war a taxawe la wala lépp loo xam ne dégg na ko te koo ànd ak ko def neen daal bul am dara looy tiit bul am dara looy jaaxle lépp loo xam ne war na ko ci dana ko def ànd ko yow bu faw ndax xam na ni dara jiitoo ko ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa ndax dëkk bi kat Serigne Touba da ko fàggul boppam ñaanoon ni bëgg mu mel ni wax wax wax wax wax na euh, nam bëgg Touba mel ni ak lam bëgg musal ko ci kon nag ndigam yàlla def na nga jug laxasaayu ànd ko mbooloo mii ci yitte ak pëstéef waaye jëm ci na xam ne Serigne Touba mu ci gerte kon ñu jeexal foofu kaddu yi di la sant di la gërëm di la ñaan ak ñu ko ànd ak ñëpp asalaamaaleykum sëriñ bi mu sànni ci kaddu rek lu mu gàtt gàtt. kaddu yi mooy Cheikh Bass wax rek. mu ni kaddu yi mooy yi sëriñ Cheikh wax rek. li ma ko waxoon li ko li mu ko waxoon Cheikh Bass ubbee ko ko. dara lu dul liggéey bii li muy rëy rëy lépp. dara lu dul liggéey bii li muy rëy rëy lépp. cant ci war. cant gi ci war. Serigne Modou mii moo ko moom. Serigne Modou Lo mu soxna Mbène Ngabou mii moo ko moom. ndax lépp lépp suñu borom moo moo ko suñu borom moo ko jaarale moo jaarale tawfiq Serigne Touba ci moom. ndax lépp suñu moo jaarale tawfiqu Serigne Touba ci moom Serigne Modou Lo mii. taxaw taxawaayam taxawaayam bii. ak taxawaayam bii maanaam mu taxaw taxawaayam bii. mu taxaw taxawaayam bii. loolu rek la mu ni loolu képp la kon cant gi gépp moom moo ko moom. Serigne bi nee kon cant gi lépp Serigne Modou Lo moo ko moom. ni ko Cheikh Bass waxee léegi rek. ni ko Cheikh Bass waxee léegi rek. noo wetam. noo ngi ci wetam. di ci lépp nag. di ci lépp nag. taxawaay bépp taxawaay bi rek na mu ko bëggee na mu ko taxawee rek noo ngi ci wetam. bépp taxawaay rek nu ko sëriñ Modou Lo bëggee sëñ Mountakha nee na mañ ko àndee noonu ak moom ci wetam. noonu rek la demee. nee na noonu rek la demee. kon maa ngi ñaan ñëpp. Serigne bi nee bokk jullit yëpp. Serigne bi nee na ma ngi ñaan kon mbokki jullit yëpp. mbokki taalibe yëpp. ak mbokki taalibe yëpp. taxawaay sëñ Modou Lo bii. taxawaayu Serigne Modou Lo bii. ci bëgg setal lépp lu bon lépp lu noonu mu bëgg setal ci dëkk bi. te ci taxaw lépp lu bon mu bëgg koo setal ci dëkk bi. taxawaayam boobu yi. taxawaayam boobu bii ku ne ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. na ci sant na ci sant. na na sant. na ci sant. te te am yéene ànd ci moom. te am yéene ànd koog sëñ Modou Lo. di di di di jox ko suñuy xel. di jox ko suñuy xel. ñu jox ko suñuy xel. ñu jox ko suñuy xel. ak suñuy bët. ak suñuy bët. ak suñuy taxawaay. ak suñuy taxawaay. nekk ci wetam. nekk ci wetam. lépp lépp ci wetam. lépp ci wetam. ànd koog moom. ànd kook moom. ci liggéeyu Serigne Touba bu rëy bii. ci liggéeyu bu rëy bii. lii moom mënta ñàkk. sëriñ bi nee na lii kat moom mënta ñàkk. waaye jafe la nag. waaye nag lu jafe la nag. kon ñun ñëpp nañ ko ñan ko jàppale. kon ñun ñëpp sëriñ bi nee na nañ jàppale sëñ Modou Lo. benn liggéey bi mooy benn liggéey bi rek la muy liggéey bi sëñ Tuubaa. ndax benn liggéey bi rek la muy liggéeyal sëñ Tuubaa. te njëriñal ñëpp lañ. nit ñi junni ñëpp njëriñu ñu baax ñëpp la. te nee na njëriñul ñëpp la njëriñul ñu baax ñëpp la. noonu rek la demee. nee na noonu rek la demee. na ko ñëpp déggee noonu. sëriñ bi nee na na ko ñëpp déggee noonu. dëkk ci dëkk bi. ñi dëkk ci dëkk bi. ku dëkk ci dëkk bi. ku bi. ku aju ci dëkk bi foo mën nekk. ak ku aju ci dëkk bi foo mën di nekk. sa yitte na nga ko def na nga def ci liggéey sëriñ Modou Lo bii. sa yitte na nga ko ànd ci moom. te ànd ci moom. la ca kam kàttan. ba dëkk bi. ba dëkk bi. li ci borom bëgg sax moom dara mënu ko li ci borom bëgg moom dara mënu koo te am. li ñu ci war nag. waaye nag ñun. def ko ñu def ko. def ko. te ànd kook sëñ Modou Lo mii. sunu kem kattan sunu kem kattan. jërë ngeen jëf ne ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan. te bu ñaanee ba noppee itam ne ñëpp dal. allahumma amin amin amiin amiin amiin barke borom amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin